ndax fa baax tàmbule la ma xam ci moom fa la tàmbule te fa baax yem bonee fekk ko fa taalibu sëñ Tuubaa bu wér la doon jaamu bu yàlla nekk guide spirituel bu nekk ci dimension bu kawe kawe kawe kawe te fréquenté naa ko fréquenté naa ma jumaa ji bi koy ubbi moom la sëñ bi yabaloon ba ñu def pause première pierre ba moom la sëñ bi yabaloon muy jëmm joo xam ne nii li ma jàpp man aljana mi ngi ci loxo suñu borom waaye sama njort mën naa jàpp ni moom ku dem aljana fekk ko saa yoo ko waxee lu méngoo wut ak lu sariya nangu mu delloo la ko ci saasi moom saa yoo koy tënk fi mara danga koy tënk foo xam ne ko xool ci lislaam fekk ko ci naa gis benn taalibeem bu xel ñu ne ko dama géntoon woor ci biir koor gi ma ñëw di la siyaar nga jox ma benn butéeli boisson ni ma dogal laataa ko ca ko sëñ ko ko fi rom ko loolu tax nga xam ne xaw ma dara ndax su fekkee ne da ngaa wóor ab koor ni mu toll ci yàlla doon ko ci julli nga ñëw ma dog loola ko kon war ngaa xam ne kon li nga may toppee ni nekkul ci man ci yàlla la nekk ma xamoon dara du ma dog sa koor googu dégagé responsabilité ndax taalibe fanaan yi diiwaan ngay bàyyi ko mulkeeg mala ko te fekk sa basang gi sax li nga fi reere xamoo ndax nit ñi ku leen topp ñu la wayen kaadu la yafti nan naka alxuraan na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na yonente bi tuuti kon nit ñi jay la ba nax la ba dugal la foo war a dugg. dëgg jàkk barab bi ni ma jàkk nit ñi def nii ngir man kooka day xam ne du ndey du bàyyi sëñ Tuubaa la. sëñ tuuti kon. su ma yàlla dimbaliwul woon fiir gi nit ñi fiire nit ba jàpp leen dañ ma ko fiire ndax mbooloo bu bari xam nga mbooloo murit bari na sukkuraam bi joxe addiya ji. bari na ko ndax ba nga defee yow du yow fekk du yow ci la samp fi barab ba nit ñi wër la kookoo waaye nit ñi boo leen toppee dañ lay dañuy doon dox sa diggante kooku gis loolu la sa bopp te ku gis sa bopp yàqu jaamu yàlla daal balaa mat yàlla na gis yàlla kese te jëm ca ku mu jàpp jëmale ci yàlla te jëm fa te boo toppee àdduna mu teexale laak moom su waa kooku jar naa topp suñu Saaliw Ture mii nag ñi gëmoon yàlla suñ borom gëm rasulullah jébbal boppam sëñ Tuubaa li ko topp. na ko de. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. ak ku la woyof laa daan sol te ngay wax ni musta gis boppam ci dara kon ku jara roy la yalla ñu yalla tassi barkem ya ku bëgg lu baax la yalla ñu yalla tassi barkem ya ku da daw gaay dem ba di daw setané ki gaay ñu yalla tassi barkem gëm señ tuba ni mu aduna ben documentaire ma setan dembu rek muy wax nit ñi ni ba ba aduna tukki ma faato tuba lañ may suuri te bo mi ngi dund kon amon garantie bu wërni señ tuba la ko ndax neena fu ma jëm señ tuba lay andal kon ku mel non ku jara roy ak as ku baax ngi non yalla ñu yalla tassi barkem waye dal ñi woyé doomi soxna da nga gis ñu woote bis na egg ko egg rek man nga tàllal solo loxo ne maa ngi waaye koo xam ne wóor ni ngërëmul yàlla li yàlla wax ni warit wàllaay akbar am sama ngërëm moo gën a màgg lu moom kooku ci amagul ko ne bul gis sa bopp bul wote sa bopp même boo gisee sax moytu ko ndax teg sa bopp bàyyi yàlla day tax a yàqule waaye jàpp yàlla fàtte sa bopp day tax a kon na ñëpp jëm ci suñu borom te bàyyi fëgg dënd gi ak yeneen yi ndax yooyu day tax a tardé rek